eleven samples yëpp dañ sero positive waaye zero positive minute ne feebar bii la de mhm. mun nga mun nañ laa mun nañ laa piqûre pour fànq feebar mhm. yaa ngi amee antibodies yi mhm. waaye léegi ñu ne nañ seetaat ndax bi jàngoro bi def euh, feebar bi moo moo moo mooy xew so biñ biñ ko confirmé ñu confirmé ne CBPP la so moo tax léegi vaccination bi dañ bugg a CRR mm-hmm. ak URR mm-hmm. parce que ñaari regions yi dañ impo dañ am they important mm-hmm. nag yu bari yu UR di o URR dañ dee ñëw su fekkee ne euh, dugga nañ si noor bi dañ dee ñëw boori ñaamina dankunku da ngaa gis ne population bi boori ñaamina dankunku dafaa gën a bari so loolu mooy problème bi migration is one big problem bu nga xam ne pharmacie dina ñëw si war a dimbale balaa ñoo jeexal vaccination bi. bu loolu weesoo mbokk yi ñu daal di ñëw naka ci fànna bi ngeen taamul seen bopp di suma xool fañ leen dee jàngalee seen leetari xool yi ñu ànd naka ak Ramatulaay Jaalo si leetari tey bi. jërëjëf maama leetar bi ñu fi am tey moom mu jógee ko si benn jigéen boo xam ne mu ngi sëy ak jëkkëram jigéen bi mu ne moom jëkkëram dafa amoon beneen jabar taagoo moom soog a sëy ak moom mu ne. Ah, si biir ah, si biir juróom-benni at bii nii yàlla may na leen fa benn doom boo xam mu ngi am ñaari at te fu mu nekk nii yàlla mu ngi ko wërsëgal umba mu ngi umba juróom-benni weer mu ne waaye nag jëkkëram fu mu nekk nii fitna bi tollu na foo xam ne jëkkëram du ko joxe dépense mbaa su ko joxee tey dépense dafa mel ni like ëllëg du ko ko jox gannaaw ëllëg du ko ko jox waaye su ko doon jox hundred dalasi ko jox fifty dalasi su doon la ko doon jox léegi twenty five dalasi la ko dee jox mu ne mu soona lool si sëy mu koy def ba pare dafa toog ba nga xam ne nit ñi tëdd nañ ay euh, fukki waxtoo ñaar si guddi si la moo jóg dem doxi nag ba boor set mu ne bu ñëwee bu ko waxee ne ah nijaay foo demoon mu ne ay dóor yu métti la ko si dee tegal te mu ne mu ngi biir biir juróom benn weer mu ne euh, mu dem si yaayi booy bi mu expliqué ko booy bi waaye yaayi booy bi dafa màgget trop mu ne yaayi booy bi lu mu ko mooy ne kii ma ko waxalee sax du ma du ma déglu parce que man amatuma doole bu ma ko mun a teg wax ko mu ne lu ko neex loolu la dee def li ma laa ñaan rek mooy nga toog nga muñ sa sëy bi mu mu dem si moom yaayam ak papaam ñi nga xam ne si dex gi la di digat mu wax leen problème bu moo dundee si biir këram bi waaye mu ne ba léegi yaayam ak papaam tam ne ko sutura jigéen daal ak taaram mooy see toogal nga muñ lu la fa fekk rek yàlla dina ñëw benn bis mu ne waaye métit bi bari na jigéen ne maire la moom it mu ngi luwaas si kër bi moo luwaas mu ne maire bi xool ko ne ko ayoon ni nga dundee ak sa jikaar di neexut ma daw na yaram mu ne ko léegi nag naa la demal si benn ah, askan benn góor bu baax koo xam ne ah, sëriñ la naa dem foofu noonu mu seetal la lan mooy problème bi sa diggante si jika mu ne waaye bu mu demee foofu balaa mu doon dem foofu noonu moom dem na si xariti booy bi sax expliqué le waaye booy bi suñ ko waxalee daal lu ko neex rek loolu la de def mu ne maire bi daal dem si sëriñ bi nii bu mu demee sëriñ bi sëriñ bi ne ko ah góor bi jigéen bi mu bàyyi woon kooku moo jóg daal bugg a tas siyam bi nii mu am ak ndaw si mu ne waaye moom gëmul yëfi sëriñ sax waaye li ko métti si siyam bi mooy ne saa su ne rek su waxtaanee ak jikaram jëna na sax guru sax tuubal ko pour mu baalal ko a fekkee ne def na dara loo xam ne naka su du la mu ne jikaram lu ko si tegal mooy dóor gu métti mu ne ragal na balaa biiram bi di yaaxu si néegi siyam bi parce que jikaram léegi fitna guddi fitna bëccëg fitna suba mu ne moom daal fitna la moo dundee mu ne léegi nag balaa dem si maamam bi nga xam ne moo ko yaroon mu paak dem foofu noonu ak doomam bu ndaw bi ndax balaa biiram bi di yaaw parce que dóori metti na mu ne mu waxtaan ak askan bi ñu seet la lañ ko xelal. jërëjëf Ramou mbokk yi ñu daal di dem naka génn ànda ak xoja géey mi nga xam ne moo doxantu woon naka dem ba Serekunda isil ñu tontu yi fii si programme bi. man de li ma koy digal mooy kilifa ndaw si ndeke mu ngi dunda yaay ma papaam sa doom fu nekk bàyyi loo war naa ñëw vérifier doomam ba xam si lan la nekk du dëgg waaye suñ la dóoralee ba mu dee ñu ñëw tegal ne ñoom ku yuuxu nit ñi dinañ la yuuxu la rek waaye yow doo ko fàtte ba àdduna jeex li ma ko diggal mooy six months yi nga xam ne dem na ba biir ko ba euh, diis nii mu traay ñaanlu liñ ko wax ñaanlu tam am na waaye doom ji mu juddoo daal man xam naa dina baax dina doon buur dinañ ko sumil daal daal ndax amu doom booy jur ñaqalu la ko mu juddu coonowloo ci mu juddu baax loolu amul il faut sa yaay sonn ñu ne yaayam de dafa sonnoon dinañ dóor dinañ watat dinañ kii man daj naa loolu yëpp te tey maa ngi nii alhamdulilah rabbil alamin li ma koo xamal daal mooy na dem kër ma ma waxtaan ak maamam maire ñoom mun nañ ci ñu lu bëri suñ ñëwee daal di ko digal ne ah su ma sët bi dee nangam a nangam xanaa nga wàññee dóor yi c'est que jigéen ju dafa gaaw a lool soo laalee rek laal nga doon loolu de foofu rek moo ma jaaxal waaye su fekkoon moom rek ak jëmmi kesem ma ne ko toogal muy dóor rek di dóor rek bu yàggee dina bàyyi du noonu kam gisoon noonu daf ko bàyyoon te la ko fa génnewoon kenn xamu ko xam nga kooku dem na léegi xelam mu ne ci kooku la nekk ndax dëgg waaw kooku su fekkee ne daf ko wax ne maa ngi ñëwit lam fa bàyyoon moom la fee fekk ni fu mu ne nii jëkkër bi boog daf ko bëggut moo tax soo gisee mu def di ko dóor rek bëggu ko te mu ngi moo mu ngi biir loolu ooru digal ko biir pour nga dóor ko bool bu set loolu baaxul ba pare dafaa joxe problème si doom doom nekk si biir ah bente na jàppa yàlla rek mu ñibi su fekkee ne mun ta toog mu ñibi parce que jege si boppam wax na ko léegi dama dama la bëggoon waaye léegi bukkaatuma la na ñibi si kër ndeyam ak baayam lu noonu loolu rek mooy wax tey faratal comme nag dem na ba mu koo teg na xar boobu ah léegi de li ko mun a sant man ak li ma koy ñaan mooy ne sëy neexul na muñ te bu dem si ay kilifa yoo xam ne ni xañ naa am na yaakaar na ñooñu am nañ relation ak jëkkëram mu dem si ñooñu joytu leen problème am ba seet ndax ñooñu itam seen dawaar suñ ko si defee ndax yàlla dina si mën a def saabal parce que diggante affaire yi si nekkul ne tey mu neex rek ëllëg mu naqari mu naqari rek nga ne da nga see génn foog nga muñ jàpp si yàlla comme li ko maamam wax demal nga muñ ku muñ di nga muuñ mbokk yi dafa mel ni tey lii la ñu waxtu may seen programme yi jamono ji waaye nag di leen fàttali rek ne ah, seen ndeetari xool yi ci ñi nga xam ne ñoo ko dee yónnee si email bi jamono ji la at yahoo dot com jamono ji at yahoo dot com ñi nga xam ne ba tey rek téléphone moo leen gënal dama ne call la ñu si 36 555 32 36 555 32 seen xarit Mama Dieye di leen dig daje ba beneen bes bu ay ci waxtu bi jërë ngeen jëf.